الذي يتعلم وسائلها لدينه متحفزا إذا ينال العلم لا تسلموا لا تستري الدنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بدجى فسيندم لا تستري الدنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بدجى فسيندم تبتلي الدنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بدجى فسيندم الخبير والقلب جميع الورى يا هادي الندى ما أوت ما خلقا قلب من درر بجاه أفضل من لله قد لجأ ما أوت ما خلقا قلب من درر بجاه أفضل بالله قد ما أوت ما قد نفى والقلب من درر بجاي عبد الإمام لله قد جاء خبير هو الكبير ما لا يبور door يكون له مثل ولم يكن خدم بلا nabi العظيم يسر لي ويسر العسير مختاره لي بلا مزيد ولا العين سواي مقبلا بما على الظهر يكون برا مع توجه المكاره ليا باقي العباد بري ووليا أمرتي وهو به راضي بلا مكاره ولا أمراضي رد لخير جهاد الشيطان من طيب الممر والأوطان فر لغير جهة اللعين يسوق لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي بيدي صفا وصفت جنودي توفيق هاد خاله الإلهام بعد البيان ما لهم بيان قد أتي اليوم برب خيبون عادني بمن قلب وخيب لا يتوجه لدهري مرعب علم محت مكاري والتعب سعادتي بغير محو فتبات وكرني العبد القديم قد ثبات ذكر لي ميسر العزيز مختار لي بلا مسير ملكني المغني عن الملوك به وبالماء عن السلوك قدمني الله على الخدام بالمرتخى المثبت الختام حسن المواهب بغير كسبي بل بالإله والإله حسبي مت لي الباقي الجميل متدا بالمسمى الذي سادس نبي وجاذبا لأولاه مجدا الله خير العالمين أخرجا من ظلوم النفس ويخرجا محمد الغالب مطهر غالب من مدودته نبينا باتنه مقدس متهل قد اعتراه بالجسم ماذا رحمته إلي سرا كليتي كفلا وشرا عبادتي توحيد ربي والسلام على الذي وكل ما نام والأوجان الأوجان بدا الإله بالذي سرمدا بيني وبين كل ما لم يفعدا طواف من لا يعبد الله انتهى طواف من لا يعبد الله La la.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 إله إلا الله Hallelujah. Allah la ngay njëkk a wax rek mooy daayira sopp maam Cheikh Ibra bi nañ ñëw bokk ci bis bi muy bisu tamxarit bi nga xamante ne doon nga ko woote fële ca place de France ren nag ñu amoon ci yéen a loolu waaye ndigal li nga xamante ni moo ci tàbb moo tax tey ñu doxalee ko nii waaye dañuy dolli di santaat bu baax a baax di ñaanal ci doole maam Cheikh Ibra lépp loo sumb rek yàlla na àgg ba nga mën a naal yeneen i liggéey te ñu ànd ci yow te doole maam Cheikh di fàttali mbokk taalibe yi ci bis bi nga xamante ne dañ ciy ñaan ñu ñaanale ci sëñ Abib sëñ Abib Fall mu sëñ Cheikh Khadim Fall ndax kat moom daa doonoon sama rakku sëriñ sama xarit la tey jii la woon lañ ñaan gi Touba kon sëñ bi bu doolee di def ñaan gi yàlla ñu ñu tuddaale ko ngir ñu mën caa ñaanal sëñ Fallou ñu ngi lay siyaar bu baax keroog séen naa la ci ñaan gi ñu ngi lay baax Fall ndax ñun amuñu kenn ku dul yeen rek la nam di doli di len siar bu wér a wér abib nak da doonoon kenn ci man barki maam seerafal ndax sama sëriñ la way da doonoon sama xarit musta ñew ties te woowu ma ne ma bàyyi man de ma ngi ties fu mu ne ma fekk ko kon ma ngi sakku mbokk talib yëpp nañ ñaanal ko ci bis bi nga xamantene ni da tombe ñukoy ñaanal ci Touba diko ñaanalat fi ci ëttu mam Cheikh kon ñu dol di siar mbokk talib sëñ musa, ñu ngi lay xaar bu baax Moussa kalam Law ñu ngi lay xaar bu wér ci doole mam Cheikh Rafal yalla suñu borom doole defal la tawfiq bu baax a ñu ngi tuub nak ci kaddu yi tay ñaanal mbokk talibé yépp yalla suñu borom defal ñu jam ci bisu xaside yi nga xamanteni ni nañ ci serigne bi defal ñu ci tawfiq bu baaxa baax ndax kat lañ ci bëggoon lepp am nañ ko kon ñu dolli di santa sëñ Muntaxa li nga xamanteni ni ñu doxale ko bisu xaside yi mbokk taalibe yi kenn ku ci ne bi nga ñibbi bi nga ñibbisee yëpp nga ci sa bopp baax a baax kon jërë ngeen jëf ñu ngi siyaar ñëpp di ñaanal sëriñ maam Cheikh Fall yàlla na suñu bolom dolli defal tawfeex ci barke borom Tuubaa ak doole maam Cheikh Fall wa sallallahu taala على sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyo bi mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk tàmbalee ko ci sëriñ maam Cheikh Fall mi nga xamante ni moom mooy kilifa ak jataay bi woote bis bi nga xamante ni bisub maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootu Cheikh gi di ci teg sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Cheikhouna Fall ngir njëkkante ak waxtu wi rekk ngir sëriñ bi dafa sàkk woon ci jataay bi luñ ko gën a mën a tënk moo ko gënal ndax lii firnde yu baree bari la ndax ku ne xam na ni Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na fi yàgg lool te wér bërki démb la woote woon bisub xasida mboolem taalibe yi ñëpp wuy woon ko ñu xey suba di magalu serigne Abdul Xaadir Mbakke as sunni al murid ñettelu fan bi di bisub maam Cheikh ibrahim Fall kon mel ni lolu ay tektal yu bari mi ngi ci mu waxon nak bis bi lepp dafa bëgg mu teŋku ci diggante njàngum alxuraan zikrullah njangum khasida ak leeral tuuti ci njariñi weer wii ak leeral kii nga xamante ni moom mooy wéeruwaayam di maam Cheikh Ibrahima Fall lenn ci ak dundam yàlla dogal na nag kii nekk sama loxol càmmoñ di sëriñ Mouhamed Lo di kenn ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di boroom xam-xam bu mag mboolem lu ñuy saytu ci wàllum njàng ak njàngale ci fii ci région de Thiès mu bokk ci ñi koy saytu bokk ci ñi koy saytu ci mboolem ministère de l'éducation waaye nag loolu lépp mu jënde ko taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall ñu fas yéene jébbal ko kàddu gi mu leeral njariñu weer wi ñu nekk muy muharram di weer woo xamante ni weer wu am cëslaay la ci lislaam waaye weer wu am wàccuwaay la ci yoonu murit mu indi ci ay leeral su noppee jébbal kàddu gi kuréelu xasaayit yi lu mel ni sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi ak daayira Fatul Xafaar ak tasawudu subaan bu sëriñ Maam Moor ak tasawudu subaan bu njiital sëriñ Boubacar Diop su noppee ñu jébbal kàddu gi sëriñ maam Cheikh Fall ak sëriñ Fallou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 zawir ridwan wa tamkin Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ñoo ngi yëkkati bu tedd boobu di ko jagleel kilifa jotaay bi di sëriñ maam Cheikh Fall ibn Cheikh Mouhamed Abdullah di nuyu sëñ Fallu moom sëñ Cheikhouna di nuyu Cheikh Omar itam moom sëriñ Sidi Fall di nuyu kilifa teew yëpp ci jotaay bi tedd bi wahid ci bis bi guddi gu mag gi eh, niñ ko xamé moy bisub mam Cheikh ibrahim Fall xamna dinañu teunk lor rek eh, ci weeru màgg wi nga xam ni weeru njëggal nga xam ni sëriñ bi mu Cheikhul Khadim mi ngi ñuy wax ni ci bis bii ci la ñu jéggal Adam ci bis bii bi Namrud di sànni yonent yàlla ibrahim ci sawara woowu maanaam ci bis bii la woon ci bis bii la ko sunu boroom xettale ci sawara jooju ci bis bii bi noon yi sëkkatale Seydina Muusa ak i mbokkam ci la mel ni Seydina Muusa ci la xar géej bi ci la am ndimbal sunu borom ngir mu mën a xar géej gi ay ci bis bii la Seydina Yunus nekkoon ci biiru jën wu mag woowu ci la ko yàpp nga xam ne bisu tamxarit maanaam ci weer wi sàkku nañu di jéggulu sunu boroom di ko delloo li mu moom nga xam ni moom moo yor sañ-sañu lépp lu ko soob ci jamono fu mu ko neexe ak fu mu ko neexe mu def ko kon nag ñu ci jaar di ci barkeelu di di di ñaan eh, li tiital jamono muy tawat joo xam ni nattu la sunu borom indi ko ñaan sunu borom dakkal ni ko ci darajay weer ñaan sunu borom jéggal képp koo xam ni wax na ni taw la yóbbu ñaanit ñaanaat sunu borom mu yàggal fi lool lool lool sunu kilifa yi ñu am للشيخ محمد المنتقى ak mboolek njabootu Serigne Touba bi di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall itam mi jëwriñam sunu borom defal ko wér defal ko kattan bu mu mën a yeggalee liggéeyu maamam ju tedd ji Cheikh Ibra nag man ñi ko nit ñi jàngate ak ni ma koy jàngate bokkul ndax ñett ñii rekk ñoo fi nekk ku jëkk ki day jafe day defe ni cheikh rekk benn waay la boo xam ni daa jóge fele rek ni mu koy imaginer mooy koo xam ni day dox ci phénomène ba nga xam ni kooko ni muy xeñtoo Cheikh Ibra mooy ci phénomène rek lay dox phénomène googu kookee day jàpp ni Cheikh Ibra ab ab artiste la waaye aarug Cheikh Ibra daa am fu mu ne waaye ñu bare xamuñu ko keneen ki day jàpp ni kenn la woon rekk jaar fi jàll ak jëfam dootul dellu siwaat walla dootul nekk koo xam ni ku ñu war a roy la walla ku ñu war a jox yitte la walla koo xam ni itam nit ñi dañ koo war a jox seen bopp keneen ki moom jàpp ni lépp lu ab talibé du am lepp lu ab talibé di am budul won ak Cheikh ibrahim Fall du ko am. waaye murit yi xir lol ci seigne touba amuñu ci sago jug jugin wo xamni ba demee ba ca dekk ba serigne bin ni 7h ci suba ba takusan nanu yai mbolo mi waye ba demee ba takusan di jege da jox ndigal sëñ amsa na na na demat ci dal yi wax nan dem ba 6h ah te la sàmbaraax xew nag fi ne moo tax yow sa minu ji mënta ne faaw ñu ñu ñu sàmbaraax ci tuuti rek ah ndax barkeb Tuubaa boobu te da ne ci semaine bi te bisu xasaayit boobu it moom nga woote ngir wax ni da ngaa bëgg rek bis ba nga daan def muy bisu tamxarit bi nga boole lépp ci àjjuma ji def ko waaye Fall sant la bu baax ñaanal la ndax léegi soxna maam say Fall mun sëriñ seexu naa sa jigéen bu baax bi bi mu toogee fii ak soxna ndey Xadi Fal, ak soxna Rama Diouf li nu ma nang nu ko seereel ci kanam serigne mbacke wuy juróom yi tok ni amunu ak fayam te Fall ñu la sante ak nonu ñu lay sakkor yi ñaan ni la la sey wuy di ñaanale ni la la yit ñi nga bokkal mam cheikh Ibrahima Fall di ñaanale te lolu li may wax man na ni man na ko serigne di mi tok di doori serigne Mourabinta waxal ko serigne Fallu mi tok di doomi serigne cheikhuna waxal ko serigne Omar mi tok di doomi serigne Sidi Fall ak ñi nga bokkal sëñ Modou Ablaye ñi tok ci jotaay bi ñepp ñepp la ciar cant Fall ci yar bi teggin ngeeg talibé gi dañ ko jëlélé waye mëna a nit ñi ci sëju koy bop nit di nga lijeenti ba am nit ñi waye am nga mëna naa ndax nit ñi jikko la ñuy japp nit waaye sa jikko ju tedd ji nga jikkowoo woo sa jikkoy makaarimul axlaax ji nga yor sa jikkoy maam Cheikh Ibrahima Fall ji nga làmboo sa jikkoy turandoo ji nga yor moo tax nit ñi mën a jox joxasoo ak yow mën a yàgg ak yow Fall yàlla nga fi yàgg yàlla na nga wér yàlla nga am jàmm sëñ Mbay Jaxate daal dañu woon sëñ Tubaa ku lay def moroom it xam na ni xel ni yaa ko man lewer gay waral ñuy dendando waaye nonu la de mbàkke ndax ku not gaynde not se gën mu far dak ñey mu daw du so woki bay noppil te way yalla gis na la yow sëñ mbàkke sa lewer gi nga lewer ak sa bax gi nga bax ak sa woyof gi ak sa mëna masla gi ak sa mëna uuf jabot gi barki sëñ tubaa mbàkke ñepp ñu ngi la koy di la ko jëwé sëñ mbàkke bu la neexon bi nga duggé ci tante bi gis sëñ mam si ak gis sa jabotu bop gi bayyi fi di ak sëñ fallu ñu téwal la te bu boobaa daan ko mat sëkk ndax inna rasula bi xadril mursili ndaw lu ne darajee ko ko yónni lay taxawee te boobaa sëñ maam Cheikh mii dina bëgg lool waaye nga toog sa toogaay bii nga toog toogaayu wéyjur wii nga toog too toogaayu ndey ji seex jii nga toog toogaayu sëriñ Cheikh Jëmb Fall mii nga fi toogee ndax yaa fi jëmmi sëñ seex Jëmb nga liggéeyal islam liggéeyal Cheikh Ibra liggéey bu rëy léegi mën a gën a sëriñ Touba lam gontoo ñëw fii la nu gontoo sa benn waaye bis bee tax ñu fanaan si toog na noonu sëñ Abdou Lahat sëñ Abdoul Ahad Mbacké mun seigne Abdou Khader ginnaw biñ ñu timis ñuy waxtaan bu tuddu sa jëm ji ca jotaay ba seigne Abdou seigne Abdoul Ahad mun seigne Abdou Khader muy muy muy muy wax bay tuddu sa jëm ji di tuddu seigne Ousseynou ñi nga bokal seigne Modou Moussa Fall waxtaan wu yaatu lol waaye loolu dara waralu ko luddul sa jikko ju bax ji nga bax rek Fall yor jikko makarimul akhlaq ji nga yor man yaatal man uuf njabot bëgg sa doomi bop yi ñi amuñu ci yow sago ndax ni nga leen defal jataay bi guddi na toogaay bi yàgg na waaye soññee woo benn yoon wëlbati ko toog di jël sa alal di ko jox jànkati xaside yi ak ñi nga xam ñooy tudd yàlla asgor rek a man loolu nit ku baax rek a man loolu waaye sa doom ju baax ji nga ñëwal woote biis bii ñu ngi lay seereel ci moom ni dëkk bi ñëpp ko gërëm kebe mee toog muy kebe bi yaag yi nga xam bi ma koy nuyu léegi daf ne ma dimbali ma rek bu dara jib waaye dama koy tudd rek ngir jaar ci moom jàll waaye tudd ma dara ndax moom bëggul di di def lenn di jib ñu koy tudd hmm? mu ànd ak buur mee toog léegi sëñ maam Cheikh ne ma kebere teewaayam bi mel na ni Pape Dumb yaa teew waaye Fall jëf na jëfi baatuñ joo xam jërul ñu koy wax mel na ni Pape Dumb yaa teew jooju nga wax jëf na jëfi Pape Dumb yaa ci suuf te dara waralu ko lu dul kóllëre gu yàgg nit ku baax a ngi nii koo ni toppewut nit ñi alal sëñ sëñ Mbàkke maa la koy seeral baax muy kebe mii Youssou Ndour fi ne yóbbu na ko fi ci àdduna wër àdduna maanaam monde bi dëkk booy tudd ci àdduna di ko naw di ko yéem sëñ Pape Faye nee na bi mu njëkk a def muy deedu jaas boobu siiw lool nee na kebe mii moo jaayante lépp tourné ko waaw xam lool mbirum eh, nu koy waxati mbirum internet ak mbirum caméra ak ya ca xam ak tournage waaye doo doo du teg ci jotaay ba wane ko yàlla nag di koo natt ci sa ci sa doom ji faal dafay ñëw ci euh, ci ko ci tabaski gi seet ci ànd ak Abdou ñu ñëw seet ci sëñ bi bi mu génnee muy jamono boobe ñu ko ñu ko siyaar si ba léegi dañu ci dama woo di wax cofeel gum am ci sëñ maam Cheikh. ni mënta yëkkati mbooloo kàddu di ko wax sëñ maam Cheikh ndawalul guddi la bu naa coupé ba nga jàpp suuf bi jàpp ni yow rek ko jekku sa morom téena fu gën a baax gën a nooy te du ko wax. ndawalul guddi mooy sëñ maam seex kon nag Fall ñu ngi lay seere li sa doom ji taalibe yi gërëm nañu ko waaye sant ni jaayam ju baax ji nga xamante ni daa jaay ni jaay ji jaay bokk dëgg lépp ànd ak sëñ maam Cheikh ci taalibe saa boo gisee sëñ maam Cheikh ni jaayam ju gore ji mi ngi ci kanam di ko dawalal te wanewu ko benn yoon woyof lool wàcce boppam lool te jëmmi sëñ Tuubaa rek tax ak maam Cheikh Ibrahima Fall. kàddu yi kàddu yu nuyoo rek lay doon nee na ak sant rek nag. nee na yëkkati kàddu waru leen woon fi woon nee na sant yi fi kenn it waru leen waaye nee na dañuy yëkkati kàddu seere ci Serigne Mbacke seereel ko ko mu nangul na ko it te gërëmal nu ñëpp ndax nee na ñëpp danoo daje ci ñoom ci moom nee na bu limee rek nee na da du juumbaay da matal neen li ma bëggoon li ma bëggoon a yëkkati seere ko ci sëriñ bi yëpp nee na ñu am na luñ ci jot a wax muy li nga xam ni suñuy mbokki bopp lañu ñu bokk ak ñoom maam Cheikh Ibrahima Fall nee na ñi ëpp ca ñooña mag ko fopp waaye te daanaka daa mel ni commencé ak ñoom ndax nee na nii ñu koy defal nee na moom wér leer nañu ko li mën leen mut leen koo defal loolu nee na sëriñ bi ñu la koy seereel sëriñ am di mii ak sëriñ Fàllu mii ak sëriñ Omar Fall mii nee na nin koy nemmi ko nee na moom du leen nemmeeku noonu ni nu koy taxawoo itam nee na moom it du leen taxawoo noonu loolu mu ngi la koy seereel Fall ak magam yi nga xamni ñom la bokkal seigne Modou Ablaye ñi ay kilifam neena li mi def ni sun sun ko waxoon ni ko bu mu am rek neena du am mom neena lu am rek ci seen dimbal la ñom ak seru tax Jili Kine mi nga xamni moy leppam ci keur seigne Modou Ablaye moko jox ngant waaye nee na daa yebal sëriñ Maxtaar Faal mu baax mii di rakkam di léppam ak ay taalibe loolu Faal ñu nga koy seereel nee na moom nag sëriñ bi li muy waxee saa su nekk rek nee na day tàmbalee ci maam Cheikh Ibrahima Fall yem ci moom rek nee ku ko bëgg ci loolu nga may bëgg ku may noonu itam ci loolu nga nga may noonu nag te ne maam Cheikh Ibrahima Fall rek laa nekk te gëm naa ko gëm goo xam ni doyloo ko noo xam ni du ma xaaraan kenn du ma wax mbaxayaaf ci buntu kenn nag ndax jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ji ak wóolu ko rek nee na mbaaxam googu nag ci la defe ku dugg si rek ku nu gis rek sopp nu ñii fi defee ñoom ñëpp rek maam Cheikh Ibrahima Fall dong lan nu jàppe muy sëriñ Omar Badiane mii di DG Pape Doumbia nga xamante ni moo def baas bii ñoom ñi ñëpp nee na jaw kàddoom daf koy wax nee na wax ni moom du politique ndax mënu ko waaye am na côté boo xam ni moom maam Cheikh Ibrahima Fall nee moom lay politique ñoom ñii ñëpp nag ne ni ma ko waxee léegi ak taalibe rek lan ko jàppe akuk cofeel lu nu def ci moom itam mi ngi lay seereel ni maam Cheikh Ibrahima Fall dong nga tax waaye du leneen nag Fall ndax nee si sëñ Omar Badiane mii nee na demagul këram xamagul kër demagul këram seeti ko te nee na ñëw na ci kër gi fekk si ko fi ba tàyyi fekk ca daara ja itam bu yàggul dara a ñëw na ànd ak njabootam fekk ko fa te loolu nee na ku ne xam na ni cofeel la nee na kebe biyaa gi mee ma doon tudd leen it noonu nee na ñii tudd yàlla yëpp noonu mboolem ku fi daje rek faal mi ngi la koy moom daal mi ngi lay xamal ni sagal nga ko baax bu baax faal nee na faal sagal nga ko bu baax mu ngi lay bàyyee nee na sa maam maam Cheikh Ibrahima Fall mu baax ma nee na dina gën a dénkaat suñu bopp rek Fall ndax nee na ay ndaw lañu te dañoo amul bëgg te bëgg nag léeg-léeg mu yóbbi nit loo xam ni nee na day far déborde day ëpp nee na mën naa feeñ sax ci jataay bi nag muy wax ji ñuy wax ci sa kanam te na warunoo yëkkati kàddu lu dul déglu la nga déglu nga ñu digal di ñu di ko def rek nag nee rek lan war a def ci jataay bi nee na waruñu fee feeñal dara nag waaye xam nañ ni nee na cofeel gi nga am ci maam Cheikh Ibra xam nañ ni bu wér gi nga ëmb yor ko moo ko ndax nii nga toogee ci suñu biir bu dul woon bëgg gi nga bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall doo doo ko def mukk na Fall ndax leen fii nekk bari na te li may ñëw fii ci yow di la nemmeeku néew na lool Fall waaye nee loolu lépp nag. ay yéene yu am la ak lu ñu bëgg a defe te loolu mu ne gul ko kon na faar nga bàyyi ñu xel baax saa su ne itam say kàddu yu rafet ak say soññee nee na day asu ci ñoom kon nee na bopp lépp loolu di ñu def nañ ko rek wala ñu wax ko nga dina ko jéggal te dinu woo dinu digal te dinu tere foofu rek la ñu toogee faal di déglu ndigal te di ko jëfe te di moytu lépp luy ay tere nee na noonu la ko suñu waajur bu baax mi di sëriñ Cheikh Ngounda Fall di ñu ko defalee léeg-léeg mu wóolu ma nee ba ma tiis sax jàpp ne damaa def dara waaye su ma ko wuyoo nee na def naan na maa ngi lay bàyyi xel waaye nee na gisaguma ne nag nga jàpp fenn nee ko ñaanal ma rek Fall ma gën gën maa dimbali. loolu na Fall ñu ngi la koy dénk ñu ngi la koy dagaane tam bu baax nga ne loolu soxlaa dee nu woo dee nu yónni dee nu sas dee nu def lépp loo xamante ne war nañu ko digal ab taalibe bi ndax loolu rek lan war a def Fall ni jàppe sëñ Modou Ablaye noonu nee na la jàppe jàppe ko sëriñ Cheikh Mounda jàppe ko mboolem njabootam lan Cheikh Ibrahima Fall sëñ Moussa Fall ak ñëpp rek Fall fu ma gis day daal di jàpp ci noppam bi ni ko loolu gën naa laa gis de mu ni ko Fall man damaa fi rek taxawaa la waaye ñaanal bu baax Fall ay nag Fall ñu ngi sant bu baax sant gi may sant maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi la koy seereel di nga xamal ni tey jii maam Cheikh Ibrahima Fall dong moom laa doon sant ci moom it laa yem raxuma ci keneen Fall butu ci mbégteem kenn lu dul mbégum maam Cheikh Ibrahima Fall xam naa ne mbégum maam Cheikh Ibrahima Fall mooy sa mbég mooy mbégu jaam ñëpp kon nag boo nu nanguloo rek leer na ne lépp dana nangu fa kon ñu ngi jégalu kàddu yu baax di di wàcc sunu kàddu di tuubaat baax faal tey jégalu fa. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mi yépp nee na kenn ku ci ne ci sa tur ak sa sant. nee na ci na mu gën a rafete rek. ci yéene. nee na di sant ñépp jataay bi sëriñ bi nee na jataay bii warees na cee sant na cee sant ñi ko fekke ñi ko fekke teewe ko nee na mu xaw a yàgg itam ñu tàmbalee ko ca bëccëg ca suba ba waxtu wii kon noonu ñooñu amal nañ leenu cant nee na sëriñ maam Cheikh lan ko defal ndax nee na moo woote ñu ñëw waaye ku dégg kàddoom yii ak ni mu waxee ci jëmmam ji toog ak ni mu woyefale boppam ak ni mu jële lépp teg ko ci loxol sëriñ bi jébbal ko ko ngir jëmmi maam Cheikh Ibra kon nee na dafay xam dafay dafa mel ni nee na nag kàddu cant gi nag day mel ni moom mii moo ko war a def nag moo war a sant ndax nee na booy seetlu day mel ni eh, dafa woote ngir jëmmi maam Cheikh Ibra la ca war lépp mu def ko ànd koog ay taalibeem ànd koog ay taalibeem ak njabootam ak wëllëreem ba mu mel nii kon nee daf koy sant nag ndax nee na ku def lu mel nii di ngóora di ngóora di njàmbaar nangu ba pare nangu koo jël nag cër boobu li muy rëy lépp nangu koo joxe bañ caa feeñ kooka li mu la defar rëy na waaye nee na la tax mu def ko nag te mooy Cheikh Ibra lu mu ci wax rek dëgg la alhamdulilah kon ko sëñ maam Cheikh. sant bu baax bi nee na ñoo ngi sant bu baax. yaag sa fi ñi fi sa bokk yu baax yi fi daje. sa yi. ak sa wëllëre yi. ak taalibe yi. ak eh, sa doomi baay yi. nee na sa doomi baay yi. nga xam ni. yéen a bokk jataay bi. yéen a bokk liggéey bi. yéen liggéey bi. xam naa ni. لا سبب مو يكسي في سين باستيف تي بوك سين يينه تي بوك سين ياني تي لا بوك سين ياني تي لا سين بوك لا ني ليغيال كون نك الحمد لله رب العالمين لاني واخ يالا ديمبلي نما بما فكيكو نك muy mbecte ci ku ne xam na ni man Cheikh Ibra Fall moom lu ñu ko defal lu te yàlla tax pay ga ak yool ba ak lañ cay yéene ak lañ cay ñaan insha allahu yàlla daf koy def kon nag nan sant yàlla rek xam ni jataay bi daal ah yàlla eh, yàlla dana nu ko fay nim nu koy fayee nag mooy kenn ku ci nekk la nga bëgg yéene ko yu fas ko rek ci jataay bi jataay bi attan na ko ki nu koy defal àttan na ko weer wii nu koy defee it attan na ko nee na tey jii ku ne xam na ni du tam xarit tam xarit ak seegul fukki fan ak juróom-ñeent la te nee na ci juróom-ñeenti fan yi lay doon nee na ci moom lay am asamaan xëy di fukki fan ñuy asura taaswa ak asura nee na taaswa la ñuy feetu ci ay ñam xéewal yeeg asamaan set euh, nee na bisub ñaan la muy yowmal asura bi loola ak seegul nag waaye weer wi am nay mbóot yu bari yoo xamante ne ni daf koo làmboo ba tax na bis boo ca feetu rek bis boo ca màggal rek jàppal ni am nga yoolu màggal kon nee na bis bi kon am na solo mhm. ñu ngi sant bu baax a baax a baax Fall a awtul itam moom daa xalaat moo la ëpp xorom moom <laughs> loolu de dëgg la Fall <laughs> waaw xorom si def fari na lool kon nag ba ñu fonk ko rek bu baax Fall bilaay Fall waaw moom daal jataay bi ngi mat na sëkk Fall lépp mat na Fall mat na sëkk Fall waaye nee na jëmm ji di sëñ maam Cheikh daal na ngeen xam ni sëriñ bi nee na bëgg na ci sëñ maam Cheikh ni mi ngi taxawu Cheikh Ibra Fall ci anam goo xamee ni nii ngoo ngox dëgg yàlla nee na suñu xol sedd na ci nag am na ñëpp jàmm Fall lii ngeen wax léegi ci digganteem ak nit ñi digganteem ak Pape Doumbia muy directeur Thiès Prestige kooku kooku itam sëriñ bi nee na xolam sedd na ci moom itam. na Kébé Serigne Mbacke nee na mi ngi nii yóbbante ci DG Pape Doumbia ak cant nee na mi ngi nii yóbbante nee na yëg nañu taxawaayam ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall rawatina ci jëmm jii di sëñ maam Cheikh na xam ne nag lu mu def ci moom rek nee na moom ñoo yéen ñii di def ci moom ci moom mii lu ci waay def rek xam leen ni yéen moom mii ngeen ko defal kër maam Cheikh Ibrahima Fall ngeen ko defal. kon neena yalla na leen man Cheikh Ibrahima Fall fay yok seen xewal ak seen martaba ak seen wer guddal seen fan sam leen sam njaboot gi yeb jere ngeen def Fall Wow. Oh, Amen.